bool Africa League bi dem la jeex équipe bi nga xamante ne moo di Petro Luanda moo ko mujjee jël ñu ñu war ci waxtaan waxtaan bu am solo ak participation bu AS Douanes moom mi nga xamante ne équipe bi jël champion équipe bi jël li nga xamante ne moo di euh, trophée bi moo ko éliminé mu nekk ab déception bu mag a mag ci ñi nga xamante ne moo di les férus du basketball beneen ponk bi nag wàllum football la ndax ñi nga xamante ne ñoo di sunu gaynde yi ñu ngi ñaari match yu ama ama solo jëm ci wàllum qualification coupe du monde 2026 du noppi du ñàkk aussi daañu waxtaan li nga xamante moo di sacre bu maanaam Tëngéej FC ak sunu jigéen yi euh, sunu championnat euh, tournoi UEFA A bi amoon fi nga xamante moo amoon fële ca stade Lat bu Thiès sunu gaynde yi conservé li nga xamante moo di seen ay titre moo nag nara ponk ñu waxtaanee seen magazine bi di sport sur 7 tey jii nag euh, magazine bi dama ci wéet trop ndaxte ki nga xamante moo di sama binôme di Alaaji Grégoire dafa dafa daf ma daf ma tey daf ma daw mais tënkee on va gérer incha allah jaajëf di ko def un big up aussi Alaaji Grégoire nekk fële ca Joal léegi nag lu ñuy def mooy dañuy présenté ñi nga xamante ñoo di ay gan ki si njëkk a présenté nag moo di Abou Seye borom basket Sénégal Abou maa di la ziar Babou euh, di kontaan nekk ci plateau bi bokk ko ak euh, suñu grand Thierno. Euh, on espère que débat bi ñuy am fii à propos du basketball et du sport en général ça va servir. ñoo ñuy seetaan. merci beaucoup Abou Seye Abou mu ngi jàkkaarloo ak sunu grand ki nga xamante ne moo di El Hadj Thierno Dramé di nga ko présenté yàgg na ñëw fi nga xamante moo di plateau sport 7 El Hadj ñu ngi lay nuyu. yéene samay grand <laughs> di nuyu aussi téléspectateur 7TV euh, am kontaan loolu teew fii si émission bi comme d'habitude merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé nekk fële ca RTS ci télé bu mag bi voilà ki nga xamante ne mooy sunu doyen di euh, Lamine Mboup moom dinañu rejoindre ci nga xamante ne moo di plateau bi dafa demoon football ji daa dem comme d'habitude rek moom chaque dimanche day football bay bu ñëwee fii du ñu bëgg a wax yarate rek lay def mu ne <laughs> di di bu voilà léegi nag dañu dañu dañu euh, tàmbali li nga xamante moo di waxtaan le temps ki nga xamante moo di doyen Lamine Mboup installé wu mu ma di signé daa ñëw mais doyen da nga am carton jaune voilà am carton jaune mais ba <laughs> di ko jaajëfal bu baax mais euh, Abou gis nga li nga xamante ne moo di euh, démb final bi équipe bi nga xamante ne moo di Petro Luanda moo mujjee de gagné Al Ahli bu Libi nekk fa fële ca euh, Al Ahli waaw bu Libi ñu dóor ko 107 à 94 mu mujjee succédé ñi nga xamante ne moo di maanaam Al Ahli bu Égypte démb mu nekk une victoire méritée n'est-ce pas. une victoire méritée bien sûr pour Petro Atlético Luanda parce que soo xoolee ñoom bi ñu déplacé pour euh, dem à Kigali euh, loolu moo nekkoon seen objectif seen entraîneur bi il avait clairement dit que euh, la Basketball Africa League moo leen manqué ci seen vitrine de palmarès euh, sur le continent africain. donc soo xoolee ces dernières années dañu doon échoué euh, en quart ou bien en demi-finale soo xoolee pour bien gérer leurs deux premiers cartons bi ñu ñëwee ci final eight bi à Kigali c'était la même chose aussi match de classement bi comme match quart de finale bi ils ont débuté euh, de de façon assez moyenne. mais bu ñu demee ba troisième carton. Mhm. là dañuy yokk seen vitesse de croisière. effectivement donc seen meilleur élément yi là il commence à se mettre en évidence donc soo xoolee seen match yëpp c' presque c' est presque le même scénario qui se passe c' en deuxième période qu'ils font la différence. ba ci démb final bi. Euh, Al Ahli bu Libi mhm. moo dominé deux premiers cartons yëpp ba mën leen douze points d'écart à la mi-temps mm -hmm. mais troisième carton bi ils ont réalisé vraiment parfait pour revenir à 75 partout. Mm -hmm. euh, à la fin du troisième quart-temps quatrième quart-temps nag bon ils ont clairement explosé parce que xamoon nañ ne c'est le dernier quart-temps de la saison pour essayer de décrocher le titre donc ils se sont vraiment défoulés sur l'équipe libyenne. Mhm. Mhm. pour mën a gagner trophée bi. merci beaucoup Abou euh, Thierno démb dañoo gis une équipe de euh, allez, vraiment explosive sur les li nga xamante mooy les deux premiers quart-temps avec un Solo Diabaté vraiment des grands nga xamante ne moo di mooy finale bi démb. bon déjà final bu neex la woon parce que euh, li ñu gis euh, pour les amoureux de basket lépp lu ñu wut ci basket gis nañ ko dem euh, y a eu de la tactique euh, offensivement c'était très bien défensivement aussi euh, il y du spectacle parce que voilà toute la palette euh, du basketball gis nañ ko en termes de handle en termes de de dunk Sénégal boo dugalee euh, euh, si on met 40 pour cent quasiment de de réussite sur la ligne des trois points euh, du côté de de de de de kii aussi c'était à peu près la même chose maintenant les à un moment donné le match était fermé mais après les entraîneurs ont lâché les chevaux quoi. Mhm. gars yi commencé jouer bal bi et donc forcément on se crée des situations et ça euh, veut dire quoi ça veut dire que tactiquement les joueurs africains sont bons. Mhm. euh, l'apport des Américains était là présent parce que mhm. démb aussi quasiment booy xool en dehors de l'équipe bon Al Ahly les meilleurs ñu demoon ba final ci édition bi jàll AS Douanes nak daal di fësal statut favori ci bile bal édition 2024 mu daal di ware a tout pour la gagner ah, c'est ça <laughs> merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé ki mën a wax le doyen Lamine boobu rejoindre nañu si li nga plateau doyen foo j'étais avec le futsal le futsal euh, qui a commencé avec euh, la Fédération sénégalaise de football euh, la direction technique nationale de Mayacine Mar et Aline Badarawad. Aujourd'hui, c'était la finale. C'est la finale parce qu'ils ont fait des journées. Et c'était la dernière, dernière bi Donc, euh, j'étais là-bas en tant que reporter, en plus. Hein. Donc, euh, une belle finale qui s'est terminée, mais j'ai dû laisser euh, un match qui est resté pour pouvoir euh, honorer ma présence à, à, à votre invitation. Mais demain, c'est la bi mhm. yow Yo, ban commentaire nga ci amal man damay am regret même regret parce que foog naa ni ki jël champion ki jël coupe mhm. moo ñu moo mhm. te douane mhm. dafa déroulé rawee ko lu bari caaxaan ba mu ba ñu ñëw ba rattrapé ko donc euh, mën nañu wax ni coupe bi douane moo ko waroon moom donc déjà c'est et on les félicite et on leur demande de continuer à travailler bon écoutez comme ni ko Thierno waxee ak Abou euh, une finale ça se et je pense que Petrolanda avec euh, tout qu'ils ont eu en réussite loolu moo may la différence avec leur adversaire parce que quand tu concrétises des avancées comme dans le football des occasions concrétisées mooy indi mën nga dominer équipe def lu neex boo dugalul bii doo mm. a euh, pendant combien de minutes. Mm-hmm. et deux buts euh, des faits de jeu donc je pense que c'est ça le basket ils ont mérité. Mm-hmm. parce que pour avoir éliminé la douane déjà. Mm-hmm. en revenant par vingt points d'écart. Mm -hmm. Je pense que c'est une équipe qui a su euh, revenir comme la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique mhm. pour enfin mhm. euh, arriver à ses fins et gagner ce trophée. En tout cas, félicitations et mais c'était du beau basket. C'était du beau basket. Euh, merci beaucoup euh, doyen Lamine boobu léegi ce bi nga xamante ne kii di Oumar Thiam defal nañu ko ci maanaam parcours douane rawatina li nga xamante moo di son dernier match ak bu muy joué ak équipe bi nga xamante ne moo di Petrolanda ñu xool compte rendu bi ñëwaat. ñu demoon ba final ci édition bi jàll AS Douanes nag